xam nga xam nga xam nga lu olof di naan rek nit moom bu ñu lay tam bu fekk la ngay feeñoo li yeeru yeeru biir. lii mhm. euh, dégg nga maam dafay nekk mbir bu doy waar xam nga mhm. yow bu fekkee ni da ngaa yëngal euh, Sénégal si mbir xam ne dafa jëm si wàllu diine. Mhm. nga tuddee sa bopp ab yonent. nga tabax sa sa bopp ab kaaba. nga wut say fidèlu bopp. mbir boobu jaaxal ñëpp ba wër ar Sénégal gépp pour àdduna ko wërngal këpp déjà débat boobu xoolal lu mu mën a jur si xolu jullit xoolal lu mu mën a jur si yenn interprétation yi mm-hmm. noppee guñu si ci waxtaanee loolu di di loolu yow moo mu tuddee sa bopp am yonent mm-hmm. ñu fekk la ngay jukki-jukki si benn xale koo xam ne daanaka fukki at ak ñett la am maanaam acte de pédophilie et détournement de mineur te itam dañuy jàpp ni gune googu ñaar maanaam douze ans ci la nekk ci kër waa jooju ba tey ah. ki nga xam ne dafa tuddee ah. boppam li nga xam ne moo di yonentam nga xam amee douze ans la tàmbali seet moom hmm? wala boog bu mu amee quatorze ans la tàmbali seet moom def naa ni loolu yëpp enquête bi dina ko mën a leeral waaye li mën a am moo di xam nga lu tubaab tuddee endoctrinement hmm. Hmm. maanaam euh, na sa xel sa xel loolu la liggéey ba nga xam ne daanaka moom si boppam sax li nga xam ne am nañ ko comme information te léegi du tasaaroo na. Mhm. mooy ñi ko topp sax daanaka dafa leen dugal si li nga xam ne moo di endoctrinement dëggantaan. Mhm. xale ku ndaw kooku ci la bokk te itam lañ sa lañ lañ lañ gën a doy waar mooy ba ñëwee foofu gendarmerie ba mu ñëwee ci googu. Mhm. fekk fa googu dong Sénégal xarañte police nationale Sénégal dina yow firndeel ci enquête yi effectivement ndaxam kooku tuddee boppam yonent et eh, eh, noonu la tëkkee woon ak li nga xam ne moo di gune yooyee <laughs> waaw parce que maa ngi liir ñu ne depuis deux ans la téye xale bi papa xale bi mhm. nag moo sonn ci li mu jël xale bi di ko jabaroo moo tax mu dem gendarmerie kalaame ko ba jàpp ko mhm. mais bu ma mhm. gisee sa article aussi yaa ngi def ne moom jamono ji mi ngi wékku ah, ci gynéco ba ñu yóbbu xale ba xool moom fan lay waaw waaw alaakulli aal moom xam nga xam nga ñu ko jàppee rek moom euh, loi Sénégal moom dafa leer jëm si li nga xam ne moo di xale bu jigéen li nga xam ne mat naa sëy ak mat naa sëyal. Mhm. xam nga tey nii ku amul fukki at ak juróom-ñett maanaam 18 ans fu mu toll koy waxee si mbedd bi rek moo di alalu procureur procureur ga maanaam mhm. doomu procureur ga mhm. donc damay jàpp ni bu fekkee ni sax culturellement et traditionnellement. am na si yenn contre yi au Sénégal ay jigéen yoo xam ne da leen di maye laataa ñuy am sax huit ans waaye dafay fekk mu am consentement des parents. Mhm. te si lii euh, nga xam ne tal na ki nga xam ne moo tuddee boppam yonent te jiite secte boobu ñuy woowatee Mbacke Ruuxu. xam na fële ca Kolda dafa nekk mbir boo xam ne way juru xale bi amul ànd si te itam euh, topp gu mu leen topp. xam ne seen ay waajur neexu leen te itam euh, ñi ngi fexe dañu mën a yëg ñu euh, ñuy fexe mën a jëlaatee seen li nga xam ne moo di seen ay doom mm-hmm. waaye damay jàpp ni rek moom bu fekkee ne yonent la ah na na wane ne la na jël per na jël kurus na jël ay ñaan ndax mën mën a génn si lii waaye jàpp naa ni li nga xam ne mooy yoonu Sénégal ak jëm si li nga xam ne moo moo xam ne cour bu fekkee ni daal euh, procureur euh, def nañu enquête ñu def ko lu ko war a def bu ñu naa ne moom ah euh, dina wëlbatiku hmm. nekk mbir foofu foo xam hmm. maanaam fi nga xam ne hmm. mbokk yi xam ngeen ni yàggul dara Sénégal amaloon na tukki nemmeeku ca Kolda seeti ji woon Baaba Malaabe Mbàkke ruuxullaahi moom mi wax ni moom ab yonent la coow bëri ci lool kenn ku ci nekk di interpréter seen sit Sénégo àndoon ak sunu naataango Papa màgget ak seet na Alioune Ndiaye ci wàllu xarale gi def tukki nemmeeku googu noonu seeti ko ca dëkkam nga ngir waxtaan ak moom mu indi ay leera ci coow li nga xamante ni moom moo ko topp ndax yonent la wala du yonent la ca xew defe naa ni yéen ñëpp gis ngeen ko ca reportage googee nga xam ne Sénégal euh, tasaare woon na ko mu tas ci réseau sociaux yi waaye tey nag xibaar gu doy waar daf ñu dikkal ci ay mbiram baaba malaa bi mbàkke ruuxulaax yi nee nañ teg nañ ko loxo lu xew euh, wàllum détournement de mineur ak pédophilie maanaam sàkkum gone ak euh, viol moom leen ko jàppe ba nee nañ fi mu ne nii ñu ngi noonu di ko yóbbu ca commissaria bu euh, Kolda waaye nag loolu naka la mën a demee ndax gis ngeen Sénégal bi mu fa demee ca dëkk ga moom dafa beru te dafa sore ci li nu jot a gis maanaam doon na lu jaaxal moo ko def wala euh, defu ko lu ci munti am fi mu ne nii nag comme nee nañ mi ngi ci loxo yoon sénégo ni mu baaxee di leen indil ay leer ci topp ka dina ci indi lépp lu ci leer waaw ndax mbir mi euh, doy na waar ba fu doy waar euh, yem